mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla aji yërmande ji bëgg ñépp xam yoonu mucc wi te di ko topp am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub Wolf Njaay dafa wax ne ñaq jariñu lii wone ne bu nit bëggee tedd dafa war a liggéey waaye xanaa laaj bi ñu mën a laajte mooy ak ni yàlla bëgge doomu aadama lu tax mu teg ko coonob liggéey waaye bu ngeen nu toppee dinanu gëstandoog yéen ci sunu njàngum tay mi jëm ci mbirum liggéey di mbir mu am solo xarit yi ni ngeen ko xamee yàlla ci boppam moo jëkk liggéey mbind bi nee na noonu la yàlla sottale asamaan yeeg suuf ak lépp li ñu ëmb ca juróom ñaareelu fan ba yàlla sottal liggéeyam bi mu defoon te mu noppalu ca juróom ñaareelu fan ba ci liggéeyam bi mu defoon bépp gannaaw loolu muy soog di liggéeyloo nit ndaxte ba yàlla sàkkee àddinaak li ci biiram lépp sàkkaale woon na toolu àjjana itam mu dugal nit ca tool ba nag dénk ko aw sas ni ko mbind mi waxe borom bi yàlla jël nit ki tàbbal ko ci toolu àjjana ngir mu koy bay te di ko wattu kon liggéey moo di sas wi yàlla sasoon nit ca toolu àjjana ci kaw suuf muy bay te di wattu tool ba loolu wone na ci lu wér ne nit moom yàlla sàkk ko woon ngir muy yaacaaral rekk waaye yàlla barkeeloon na liggéey bi mu dénkoon nit noonu ay xéewal rekk la ca nit doon jële bu nu sukkandikoo ci loolu lépp xanaa kon dinanu mën a laaj sunu bopp waaw naka ak kañ la liggéey nekk coono ak fitna ci nit kàddug yàlla indi na tontu ci loolu dinu xamal ne lépp a ngi tàmbali bés ba nit daanoo ci fiirug seytaane booba la liggéey noppee nekk mbëkk ak bànneex ci nit daldi nekk warugar wu diis wu ko dul wàcc tig ba keroog muy sàngoo suuf ndaxte gannaaw ba aadama ak awa bàkkaare yàlla dafa ne awa dinaa yokk sa coonob ëmb ngay wasin ci metit te say bëgg-bëgg di jëm ci sa jëkkër waaye moo la yilif mu ne aadama nag moom ndegam sa waxu jabar nga dégg ba lekk ci garab gi ma la tere woon dinaa alak suuf si ndax yow ci coono ngay ame sa dund ba ba ngay dee suuf dina la meññal ay dëkk ak i dagg te ci ñaxum tool yi ngay lekk ci saw ñaq ngay dunde ba keroog ngay dellu ci suuf si ma la jële ndaxte pënd nga te dinga dellu nekk pënd mbokki déglukat yi ni ngeen ko déggee bépp coono ak metit bu doom aadama di daj ci liggéey bàkkaar a ko waral moona li yàlla jublu woon ci liggéey moo doon xéewalu nit waaye bàkkaar a tax ba solo liggéey réer te mu mujj a nekk coono ci nit moo tax léegi nit di dang-dang yi bay bëgg a dee te du tax mu am ca bànneex ba mu ca waroon a am waaye metti warul a tax nit bañatee liggéey ndaxte liggéeyay tax ba nga am loo suturloo lu mu néew néew kon liggéey am na solo ci jëm kanamu nit ci jëm kanamu gox mbaa dëkk te itam liggéey dafa am solo ci soqaliku koom-koomu réew am réew bu nit ña takkoo kenn ku nekk jàpp ci lenn di ca yëngu ànd ak fulla léegi réew ma jëm kanam waaye bu ñépp ne yàcc rekk dara du jëm kanam kon xarit yu ñuy déglu bu kenn may bàkkaar ak xat-xati jamono ñu tànc pas-pas bi nekk ci nun ba sunu yasara di yàcciku ku nekk xam na ne jamono ji am loo dundale sa njaboot ëmb na coono bu rëy ci ñi ëpp ci nit ñi moo tax coono ak naqar tàbbi ci njaboot yu bare te nag mbir yi àgg na foo xam ne liggéey tax na nit di def moromam yu jekkadi yu kenn rafetewul waxuma sax ci ku ne gëm na yàlla wante ruslu nu sax ci ay bàyyi ma ñu ngay jëfandikoo liggéey di ci jariñoo seeni moroom walla ñu def liggéey muy jumtukaayu nooteel waaye ndax loolu day tekk ne nit dafa war a toog rekk bañ def dara bañ yëngatu ci lenn déedéet mbind mu sell mi sax nee na lépp loo mën a teg say loxo rekk jàpp ca te def ko su dul lu yàlla aaye kon loolu di woneeti ne kenn warula xeeb liggéey amul benn liggéey bu bon su dul sàcc ak ñoom seen yàlla nee na fulla woo leen dund ci jàmm tey lekk seen ñaq noonu du ngeen soxlaal kenn dara moo tax mbokk yi lu leer la kàddu yàlla wax ci yaafus yi bëggula faste xànc ak moroomam mu ne ku liggéeyul du lekk liggéey moo war nit su ko ko wér-gi-yaramam maye su ko mënee nag te bëgg koo def waree su ko dundal yéesu mi royukaay ci bépp fànn ci dundu doom aadama daan na liggéey ak i loxoom minise woon ca dëkku nasaret barkeelaatoon na liggéey jaare ko ci li mu daan liggéey moom ci boppam joxaatoon na liggéey maanaa ma mu amoon fa kanam yàlla te ñàkkoon ko ndax bàkkaar kon gis ngeen ne yàlla santul kenn toog bañ a jéem dara bu fekkee sax ne nitu diine nga mënuloo ko mbubboo ngir bañ a liggéey yonent yi yàlla yónni woon ku ci nekk amoon na mécceem ñépp la liggéey war pool mi nekkoon kenn ci ndaw yi yeesu ya moom it daan liggéey te ñetti mbir yi ñoo ko waraloon ci bu jëkk pool dafa nekkoon kuy daan dooleem ngir faj soxlay boppam ba fajaale ci sax soxlay ñeneen ñi kon nekk boroom xam-xam taxu ko woon na yàcc moo tax mu wax ci Linjiil ne namuma xaalisu kenn mbaa wurusam mbaa koddaayam xam ngeen ne faj naa samay soxla ak soxlay ñi ànd ak man ci samay loxo yii ñaareel bi Pool bëggul woona a wéeru ci kenn ba tax mu daan ñaq di ca jëriñu nii la ko waxe taalibe Yeesu ya dëkkoon Asi ne leen mbokk yi yéen a ngi fàttaliku sunu coono ak sunu ñaq xam ngeen ni nu liggéeye guddi ak bëccëg ngir bañ a diis ci seen kaw kuy bey war na am yaakaar te kuy bojj di yaakaara jot wàllam nu ji ci yéen yëfi xelum yàlla ba noppu góobe ci yéen yëfi àddina ndax loolu dafa ëpp li nu war a séentu ndegam ñeneen a am sañ-sañ boobu ci yéen nun kon waxi noppi waaye nag jariñoowunu sañ-sañ boobu dañuy far muñ lépp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 di leen dénk ci turu borom bi yéesu Kirist ñuy liggéey ci jàmm tey dunde seen ñax kon ni ngeen ko dégge liggéey la yàlla santaane ndax mooy jëme am réew kanam yàlla dafa mësa bëgg nit di daan dooleem bañ a ci loolu nag bu liggéey amee faw mu am kuy liggéeylu di njaatige bi mu am it kiy liggéey di liggéeykat bi naka jekk ñaar ñoo ñoo séq liggéey bu liggéey doxee njaatige ak liggéeykat ñoo def seeni wareef waaw ndax te ku nekk ci ñoom ñaar dafa am wareef wu ko yàlla teg njaatige bi dafa war a xam ne liggéeykat des koy jox àqam ba mu mat sëkk mu jox ko pay ga mu yelloo ca waxtu wa noonu la ku kàttak yàlla waxe bi mu naan joxal teraanga ju mat sëkk ñi ci rafetal seen liggéey ndaxte ku ñaq jëriñu te liggéeykat yelloo na peyam noonu bokk na ci jox liggéeykat àqam nga fay ko ni mu gën a gaawe loolu la mbind mi wax bi mu naan fayal liggéeykat bi bala jant so ndax am na ci soxla bu njaatige téye peeru liggéeykat bi soo moytuwul soxla yi ñu ko xàttar bi daaneel ko bu waxtu wa jotee te fayuñu liggéeykat bi dina metti kon na njaatige yi bàyyi xel ci loolu ak ci lii leen kàddu yàlla wax naan yor leen seeni liggéeykat ci nu jub te aw yoon xam ne yéen itam am ngeen ab sang ca asamaan waaye mbokk yi du njaatige yi rekk la yàlla sant ñu rafetal naka liggéeykat bi itam na xam li ko war te di ko def mbind maa ngi wax ak ñoom naan liggéeykat yi nangul leen ci lépp seen njaatige yi ci àddina bu leen ko def rekk ci seen kanam di sàkku ngërëm waaye na nekk lu dëggu ci yéen ndax seen ragal borom bi lu ngeen mën a def na ci seen xol taali ngeen def ko ngir borom bi te du ngir nit mu rax ci dolli ne déggal leen seeni njaatige ak wegel gu mat sëkk waxuma ñi baax te lawat rekk waaye sax ñu weex ñi kon xarit yi muy liggéeykat bi di njaatige bi li leen yàlla sant mooy lii fonk leen yëf ya ca kaw te ngeen bañ a faale yi ci suuf bàyyi leen di fen seeni moroom sellal leen sopp leen soloo leen laa biir woyof lewet ak muñ muñalante leen di baalante su amee kuy tawat moroomam waaye ku def lu bon borom bi dina ko delloo sa jëf te du gënale ci lu wér noonu rekk la mbir yi mën a deme ngir ab liggéey mën a barkeel bu liggéeykat bi fonkee liggéeyam defe ko ni ñu ko séentoo ci moom njaatige bi def li ko yoon sant bu boobaa sàcc ay waxtu yàq geraate ak lépp luy indi toskare dina fi toxoo kenn dootul soxla ñu lay taxawu ngay soog a liggéey na mu ware bu loolu amee rek ci la réew mi di tàbbi ci naataange ji ñépp di séentu te mu tëw a agsi waaye nag ndeysaan loolu du mën a nekk feek sa dund dëppoowul ak ni ko yàlla bëgge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 noonu nga gis ko ne kenn amul menn pexem jege yàlla aji sax ji wante yàlla moom am na pexe waajal na pexe ngir nga mën koo jege pexe mi mooy musalkat bu sell yàlla joxe mu dee ca bant ba ngir far boru bàkkaaru doomu aadama yépp loolu mooy li yonent yëgle woon ngir képp ku gëm saraxu deretu musalkat bi yéesu doo sànku mukk boo gisee loolu lépp te dégg ko te nga gëm yéesu ni sa musalkat bi la yàlla yónnee na la wóor ne mucc nga ci mbugalu safara te yàlla dina la may xelam mu sell mi tax nga mën a dund dund gu dëppoo ak ni mu ko bëgge noonu sooy liggéeykat mbaa njaatige walla koo mën a doon dinga am kàttanu rafetal bés bu nekk ni ko yàlla bëgge ci loolu nag mbind mi dafay wax taalibe kirist yi naan leen yéen liggéeykat yi nangeen déggal seeni sang ci lépp te liggéeyal leen ba saral seen xol bañ cee boole werante mbaa sàcc waaye nañu wone takkute gu mat ba rafetal ci lépp njàngalem yàlla sunu musalkat ndaxte yiwu yàlla feeñ na te ubbil na ñépp buntu mucc moo nu digal nu dëddu weddi ak bëgg-bëggi jamono tey dund ci àddina cig maandu njub ak ragal yàlla di séentu bés bu tedd bi nu yaakaar maanaam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 tey dañu leen di tàggoo li mbind mi wax ne lu ngeen mën a def nas ci seen xol tàlli ngeen def ko ngir borom bi te du ngir nit